Bienvenue sur Salam Vision. quelques brèves, mesdames et messieurs, présentées par Cheikh Sako sur Salam Vision. Le jeune Pastef Ousmane Sonko a passé hier sa première nuit aux brigades de la gendarmerie de Koloban. Ousmane Sonko euh, est accusé de viol. La situation se dégrade euh, sur le terrain. Hier, il y a eu des échauffourées au niveau de Koloban et des HLM partout. Les enfants ont brûlé des pneus, ils ont barricadé euh, partout les rues pour réitérer leur soutien à Ousmane Sonko. Euh, disons, un grand magasin Auchan à la Liberté 6 a été brûlé, une station également a été brûlée. Euh, partout, l'armée était intervenue sur le terrain pour euh, euh, voir de visu la situation. Ces militaires ont dispersé les manifestants. Euh, c'était hier aux alentours des HLM. Le gouvernement a pris d'importantes mesures pour pallier à toute éventualité. On nous rappelle euh, ce matin ici dans la banlieue de, de, de Dakar, euh, plus précisément aux environs du sauvegarde de Guédiawaye, euh, euh, les élèves sont sortis des classes, euh, on aperçoit partout les forces de l'ordre qui quadrillent les lieux pour éviter des dérapages au niveau des établissements scolaires. restons dans cette même mouvance. Hier, euh, dans certaines régions du Sénégal, il y a eu partout des œufs entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et, et les continue de défaire la chronique que les 17 femmes du PASEF ont été finalement libérées hier euh, par la justice. Ces femmes avaient entamé une grève la femme, une grève de la euh, pour réitérer leur soutien à la leader Ousmane euh, Sonko. Restons dans cette actualité 13 euh, mouvements de la société civile et les partis politiques ont mis hier sur pied un collectif euh, pour préparer une série de marches qui est prévue ce vendredi. Euh, cinq marches à Dakar. Yanamar donne le temps en compagnie des partis de l'opposition. Ils ont décidé de marcher pacifiquement pour décrier la dictature et les violations des droits de l'homme dans notre pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, vous suivez le programme de Salam sur l'actualité internationale. Au Nigeria, la tension persiste au nord du pays. Le président Mohamedou Bouaï euh, hausse le ton et demande aux forces de l'ordre euh, d'aller récupérer euh, toutes ces filles qui étaient appréhendées par un groupuscule des forces armées au nord du Nigeria. Ce pays est confronté à euh, une situation désastreuse et chaotique sur le terrain. Bien sûr, sur euh, l'actualité africaine, euh, nous allons nous rendre en RDC, à la démocratie du Congo. Finalement, le président Kabila a choisi son dauphin qui dirige maintenant le Sénat. C'est en RDC. Mesdames et messieurs, tout de suite, c'est la version off. ko si kàllaama Kocc Barma xam ngeen ni démb ginnaaw buñ ko tegee loxo euh, actualité bi gën di wéy fi baanu Sénégal ak li ko wër Ousmane Sonko fanaan na dig fële ci gendarmerie brigade de chasse bu Colobane moom dañ ko tuuraloon fekk ndox si xam mooy Adji Sarr mooy nag euh, jiixi jaaxa euh, si mbir moomu nag xam ngeen démb si guddi amoon na ay manifestant yu métti métti fële a HLM xam mooy diggante takk der yi ak ndaw yi dañu fa taal ay magasin Auchan fële ci Liberté 6 ak benn station loolu nag euh, Syrie nag def benn renfort boo xam ni euh, yónnee fa ay armée mooy armée nationale ñu mën a euh, jàppale nga xam mooy suñu mbokku policiers yi ak gendarme yi mbir mi nag ñu gën di jéggi dayoo Sénégal yëpp ñu ngi ñaxtu ñu xam ne ñoom ñooy ñooñu Ousmane Sonko yi am na ñuy teg loxo am na ñuy bàyyi boo xoolee sax démb amoon na ay jigéen ñoom ñaxtu fële ca at mu war a passé ay jigéen jëwoon loolu Ousmane Sonko ñoom dañu doon xiifal mu ñu leen bàyyi démb xam mooy procureur de la République. di woon nag Sénégal yi ñu ànd ak dal mbir nag mi gën di euh, jéggi dayo di jëm si nag qualité ay kuréel yoo xam ni ñu ngi bootu euh, société civile ay parti de l'opposition dem nañu tëral benn kuréel yoo xam benn benn comité euh, ngir mën a xeex ak nguur ñoom nag ñu ngi waajal benn doxum ñaxtu àjjuma bii di mooy ëllëg juróomi fan si weeru mars ak waa Y en a marre dañuy dox doxum ñi ngi woo Sénégalais yi muy jigéen mag ak ndaw ñu mën a fonk jox gën suñu démocratie euh, nañu mburu fi nag xam nag defuñ dara xoxatal euh, askan loolu ñu fi nekkee mooy xam nag euh, ginnaaw doon jàkkaaru démb ak taskatu xibaar yi bitim réew la ñu doxantu fële ci Nigéria woy fépp ay élèves yoo xam ni fële ci bët gannaaw réew ma xam mooy président Muhammadu Buhari mu ngi koy ñaawlu jamono ji xam ngeen Nigéria dafa nekk boo xam ni réewum fitna la bandi yi samba booy def leen neex Euh, di jël askan bi leen boom nangu seen i alal moo tax président Mouhamadou Bari jël na ay dogal yoo xam ni eh, jox ko armée bi ñu mën leen di xale yoo xam ne ñoom jàng seen établissement yi. Euh, ñu ngi koy tëjee mbokk yi fële ci RDC république démocratique bu Congo président bu euh, Félix Tshisekedi moom nag tàbb na benn ki ko jege lool si ki jóg politique mooy jiite président bu Sénat bu RDC. mbokk yi ma di gërëm leen sant euh, ba ëllëg yeneen xibaar si kàllaama Kocc Barma présentation Cheikhou Sakho jàmm jàmm jërë ngeen jëf